sama gars yi coow bëri na et vous avez été nombreux à me poser la question week-end bon plan ak Faux Green Tour kañ lay recommencer waat et eh bien les gars c'est reparti c'est reparti pour ce week-end prochain maanaam dimanche 23 ak tamit lundi de Pentecôte 24 mai ñu ànd nag direction bu bees île du Saloum bëggee lay doon première formule bi nag week-end lay doon deux jours yi mooy maanaam dañuy agsi jël départ 15 heures ce dimanche quinze heures ñibbisi le lendemain lundi Pentecôte à 17 heures beneen formule bi nag. jour lundi bi la jour Pentecôte bi mais maanaam journée lay doon yendu boobu c' est à vingt neuf mille francs kase famille week-end bi nag mooy soixante dix sept mille ma leen ciy woo yéen ñëpp sama gars yi bëggee lay doon c' est la reprise des activités avec Faux Green Tour sama gars yi beñaat yeeg brunch yeeg du ma leen ko nettali Faux Green Tour moom saa yu ñëwaatee rek ànd ak doole donc ñëpp ñu ngi si biir xam ngeen tim bi mi ngi noonu donc du ma leen ko nettali sama gars yi inscrit leen